Ah, mbokk yi ñu suivre nag ci Equivox TV ak Lit TV parce que ñaari micro yi laa téye xam nga Lit TV moom sama kër la mais Equivox nag yàlla dogal na ni actuellement flané waaye ñaari kër yëpp benn lañ ma jàkkaarloog Mouhamed Ali Ndiaye ak ki nga xam ne moom mooy. Ndaw Dame Ndaw di doomu Saalum waaye tamit yaakaar naa ne ci wàllum art martiaux am na lu mu ci def wala lu mu si jàngale yaa ngi dégg am na lu bëri loo xam ne jàngale na ko ci yaakaar naa ne nag moom mi maître bi parce dinañ dégg Mohamed Ali Ndiaye champion du monde ak yu mel ni kii noonu waaye loolu bi muy am dafay am lu koy indi ki ko indi nag mooy kii mais il fallait que wala boog bokk na si dinaa waxtaan ak moom ci digganteem Ali en même temps itam dinaa ko laaj ci benn combat boo xam dafa war a am. dama lay kii xam nga kii mooy Dame Ndao ku ko xamul dégg na ko ci Sénégal ci àdduna bi ci Afrique partout Dame tolul woon ni nit ñi tey mais yàlla def na fu mu jaar ñu xam ni jaar na fi ci xarañam nag. ci mbirum karaté loolu yàlla da ko def nekk plusieurs fois champion d'Afrique parce que ñun bu ñu demee ba nekk champion yàlla ak ñoom ma tax moom a tax parce que ci li mu daan def tellement que ni jaaxaloon nañ ñu jaaxal boo xam ne lépp lu mu doon def dañ ko doon roy kii mooy Dame Ndao Afrique foo mës a dem dañ leen naan mais il est où daw Ndao il est où monsieur Ndao mooy Dame Ndao ba tey jii foo dem ci àdduna dañ la koy laaj pour wax la ne nag am na loo xamante ni c'est empreinte boo ko marqué fenn nga bàyyi ko fa du luy denc àdduna nekk nag sama grand bu baax wax dëgg yàlla tey këram laa yendu tey xam nga bi ma ñëwee ba Fatick dem këram fa laa yendu waxtaan na ko moom mu gunge ma ñëw ci làmb ji bàyyi ay yitteem te nag boolewu ci rek nekk champion yem ci kii dafa nekk champion plusieurs fois champion d'Afrique ba pare wàññeeku yore équipe yore Kaolack ay rakkam ak yee créé fi plusieurs fois champion yoo xam ne tam représenté nañ fi Sénégal ñu nekk nekk fi plusieurs fois champion d'Afrique bu ñu wàññee loolu nag il faut que ñu fàtte ni à part Mamadou Aly Ndiaye champion du monde de karaté 2000 senior en 97 su ma juumul moom moo yóbbu woon ñoom euh, en 2001 si 2003 moom moo yóbbu woon Ablaye Diop mu nekk champion du monde junior xam nga kon kii bu ñu dee wax xam-xam karaté Sénégal ci kii la Falenkulaaya ma jox la ko mu wax la boppam. am na solo waaw kara karaté karaté ak bëre waaw champion ci góor gi laa jëm si waaw parce que defe naa ne comme ni ko Mouhamed Ali présenté euh, tonton Dame ñu ngi lay nuyu di la ziar. Eh, sëñ Babacar ñu ngi lay ñu ngi lay fay aussi di la ziar di la ziar waaw. Euh, kii ni mu la présenté defe naa dégg nga ko nga ñu nga tënkal ñu tuuti ci sa carrière loo jot a def ndax da nga jot a équipe nationale comme ni mu ko waxee da nga koy dëggal loo fa gagné ak yan réew nga def. waaw xanaa dëggal ko tënkal ko bu ndaw rek. équipe nationale catégorie yëpp am naa ko moins de vingt ans naag plus de vingt ans naa yi yàlla dimbale ñu aussi def na ci résultat sur le plan africain liñ ci gagné ci médaille mënuñu la ko wax sur plan mondial aussi gagné ay médailles parce que quatre ans rek def nañ ko équipe nationale senior yi jox leen soixante quatre médailles vingt médailles d'or dix sept argent argent vingt cinq bronze pendant les quatre ans mais li mu wax nii nag moom vraiment xam ku nekk champion dafa dafa métti képp koo gis mu nekk rek xamal ne liggéey na ba ah li wax ci man moo nekk ci moom. ña fa ne ba bëgg a dee boose na fi mu nekkoon fekk fa dara muy mbëkkanti dem mbëkkanti dem ba nekk na champion d'Afrique nekk na champion Sénégal nekk na champion du monde donc liggéey bi moom lu bëri lu bëri ci moom ci moom la donc li muy wax ci man yëpp moo nekk ci moom ñun li ñu mënoon def def nañ ko ñoom nekk na suñu tànk roy nañu ba àgg yéegal flambeau bi ñeneen aussi bu ñu yor yor yéegal flambeau bi waaw. Euh, mu mel ne est-ce que tey bu ñu ñëwee ak li mu wax nga def ko pour Sénégal est-ce que tey am nga reconnaissance su Sénégal par rapport ak fi nga jaar reconnaissance bu mu ko waxee par Sénégal mooy état du Sénégal est-ce que reconnaître nañu champion bu bu mel ni Dame Ndao jaar fi sigil Sénégal. dara lañ deful bu la si kenn nag gis nga fii Sénégal feebar bi benn la tey état bi dañuy fàttali sportif. waaye nii nag Matar Ba moo ko moom Matar Ba yàlla def na mi ngi liggéey nit ku baax la nit la koo xam ne mi ngi def lu tout pour sport yi mën a évoluer fu am coow rek dem na régler ko mais li des Matar Ba li nga xam ni des na lu mu war a lijjanti mooy que ni tey li nga xam ne dafay nekkoon avant liñ doon wax naan ku def lu rëy am lu rëy te loolu gëj na fi mhm. ci temps wu Abdou Diouf tuuti Ablaye Wade te loolu ministre yi ñoo ko doon dox ku dem génn réew mi indi médaille d'or africain ou mondial sa dëkk dañ la war a teral tey nag bokk na ci li nga xam ne manqué na ci ay motivation ci le sport sénégalais parce que sénégalais aussi sport yi ñu ci dara gars yi dañuy débrouiller rek pour génn ci mais tey li nga xamante ne nit war na ko xool ne war naa mën a def ci moom ma def ci moom mooy que ni tey nit dem indi médaille door ñuy recevoir ko président recevoir ko honoré ko jox ko tuuti weccet mais loolu bokk na ci li nga xamante ni ñun dañ doon def lu tout pour nekk champion parce que à l'époque ñun bi ñii di nekk champion ñu leen ñu leen di recevoir di leen di leen takkal ay ay ay ay ay médaille d'honneur man ni nag sincèrement man bëgg naa mel ni ñii Lion d'or biñ koy joxe je me rappelle très bien man ni jox nañ ko Tocomasi mais je sais que un jour dinaa nekk Lion d'or yàlla def na ko xam nga tey boo xoolee am naa ordre du mérite ordre national du lion chevalier de l'ordre national du Lion chevalier de l'ordre national du Mérite mais pour te dire que ni loolu fi nekkoon donc tey Matar Ba loolu yaa moom je pense que ni yaa ko a dox yaa ko war a a wax ba nga xamante ni le président dina jëlloo njukkal ñi nga xam ne dem nañu représenter seen drapeau ñëwaat ak ñi nga xamante ni nag lu def nañ ko ci carte bi dara lañ leen defarul kenn lijjantiwu leen et loolu war na fay jóg. loolu la si yokk. waaw ma si yokk moom rek lenn comme li comme li comme li Ali wax nekk na loo xam ne lu ñu yitte parce que depuis loolu bi mu ñëwee nekk Kaolack ba léegi maa ngi wër fu mu am complexe pour mën a gën a mën tàggat xale yi mais ba léegi plus de quinze ans wala vingt ans maa ngi ci dox mais ba léegi mënu mën am complexe ni maire bi ni autorité nekk foofu yëpp ba am amagu ma ci mais ba léegi nag ñu ngi ñu ngi ci tool di leen di xaar parce que bëgg nañ ne eh, karaté bi aussi ñun fu ñu toll xale yi àggal ko foo xam ne fii ñun àggaluñ fa woon mais pour ñu am ko nag suñu savoir pour ñu mën ko partager ak xale yi au moins il faut ñu mën a am fu ñu exercer duñ waaw duñu sànne kenn xeer ñu wax kenn xeer parce que booba léegi ñu ngi nekk ci li ñu nekk mais buñ sañoon ñeneen ñi amee complexe vraiment bëgg nañ ko am complexe waaw bëri ak karaté laale nañ waaw laale nañ tuuti tuuti tuuti presque leen la mais da ngay jàpp da ngay dóor da ngay jàpp da ngay bu daane jeex na karaté dañ ne da ngay dóor day gaaw day am doole te bul gaañ waaji soo soo gaañu waaji amul maîtrise su yéexee amul maîtrise boo doon luppee kenn du la jox dara c'est-à-dire que dañoo boole lépp ngay boole pour au moins impact bi mu wóor na waaj mu ko dóor mais soxla ko gaañ doo ko gaañ bu dee bu dee làmb ji moom da ngay dóor pour kawate pour kawate. mas nga liggée ak ay mbër ci làmb ji. non. musala ma laaj la ci benn combat le 9 juin Franc Tyson 2 xam nga Franc. non xam nga Franc. moo jël fii final bi léegi. ah moo jël final bi léegi nii. waa gis naa gis gis naa combat am moom ak euh, njool mi ah. waaw gis naa njool mais nag ki ma gën a marqué ci tey ci lamb moo nekk njool moomu. Toubacouta waaw lu tax mu marqué la. tactiquement lay bëree il est intelligent hmm. waaw. kon lu ko xañ combat bi parce que demi finale moo ko xañ combat moo nekk poids lourd bi daan dafa mel ne moo problème dafa mel ni daf ko daan rek doyal. daal di jeexal doyal doyal pas jeexal doyal waaw. mais bu euh, bu jox gëdd bi mu euh, demi finaliste bi hmm. su ko joxoon waa du ko mën a daan. du ko joxoon waaw kon ni ko franc daane techniquement. bi ñëw dafa doyal xam nga ko xase ba doyal kenn mënu ci dara mais bi muy ñëw moom pour moom problème bi yëpp mooy nan lay daane waajur ma xamul nu mu tudd moo nekk xees bi poids lourd bi. Doudou Sané la moom kooku la fiyor kooku rek ko nekkoon problème. parce que kooku temps yi boo xoolee balaa ñoo woor li mu gagné dafa bëri bër démb oto yi ñu tegoon fële moo gàgge sërif moo ko gagné xam nga kooku tey boo ko gagné ci demi final finalu da naan man ma nga au sommet. te nag gis nga sport de combat. tant que at bi yëkkati loxo wax la gañe nga. munoo kenn. tant que jàpp ko victoire munoo kenn. mais gëdd bi mu jox waa ji su ko joxoon gis combat bu a neex. parce ñaara ba li ñu naan boo fekkee dama ko xam ne boo ko daanee da nga war a nekk champion. waaw waru mën a daan kooku man nag franc man minu ma ko xaw ma ko. donc ñi ma gis ñëpp xaw ma ne teeleen soo gis war na a gañ ci ko war a génn neex na. waaw mu neex na daan naa ko seetaan nag bu yàgg mais après quelque temps xam nga boo mi ne télé bi hmm. di seetaan ñu ay Balla Gaye ñu Modou Lo ñoom Ama Baldé ñu Eumeu Sène parce que day neex neex boo xam da nga jotu may dem ci stade bi sax parce que la plupart li nga gis télé bi mun naa am boo boo duggee ci eh, stade bi doo ko mën gis léegi je préfère man ma nag ma kàr ko ci terrain bi. am nga mbër. waaw vraiment am naa mbër nag. mooy sa mbër waa Fass ñu ne ko sama parce que maa ngi wax booy bi léegi na ko ne ko ne ko. nekk ñoom ñëpp parce que maa ngi leen booy bi ko lambu ji mu mujj seetaan stade Iba Mar moo nekk revanche su Mor Nguer contre Manga bi ko Manga di dóor muy daanu keroog maa ngi woon ci lambu ji doo ko seetaan. léegi utal naa la waaw. léegi nga Serigne Ndiaye 2. Serigne mooy kan. moom mooy xale bi nga xamante ni tey jii wax dëgg yàlla Fass la nekk. te wax dëgg yàlla ku ko gis. ci fi mu toll tey ci fi mu jógee fi mu toll ci lay ci làmb mi ngi béy wàllam ci tool bi te xam naani ni mi ngi wax gars yi maa ngi ñëw moom moo démb moom moo gagné tournoi bi amoon ñaning te boo ko gisee marché de progression bi muy am bu ci kanamee tuuti dina bokk ci ñi te ci làmb ci ci làmb ji waaw te kooku suñu fils la waaw kooku suñu fils la man ak Moustapha mais nag kii comme sama grand la tey jàpp ne la kooku Serigne Ndiaye tey ci ah, ah. waaw mais xam nga histoire moom li tax ngi ñuy jàpp wala ñu lay bale ñu lay ba yaa ko wane waaw bu même discipline boo mën def li ngay wone moo tax ñu jàpp lañu bàyyi xoolal xoolal Tapha Guèye bi ñu toll xoolal ngeen dañoo ñëw bañ nangul ne moom la léegi Serigne Ndiaye bi mu wax nag léegi moom est-ce que mën na àgg fi Tapha Guèye nekk est-ce que ñu miin Tapha Guèye dañuy gis technicité bi Tapha amoon am na ko bi Tapha Gueye amoon am na ko est-ce nag pour ñu lijjanti ko mooy mooy ma gis ko ñaar ñett yoon mu bëree man ci wax mais comme xaw ma ko mais fi may jeexal ak yow mooy mbër yi nga lim sànq da nga tudd Modou Lo tudd Balla Gaye tudd Eumeu Sène Ama Baldé ak ñooñu mm. Mm. consort googu mm. koo ci gis yow kan nga ci gis ci technicité bu doy waar boo xam ne kii technicité technicité bu doy waar la ci xam mu bëri ak aaru combat ñu ñëw ba léegi tu vois ñu ñëpp ku ci ëpp ku ci ëpp personnalisé daan sa morom ku ci ëpp personnalité. ñoom ku ci ëpp personnalité sa gis-gis. maanaam kenn ku ci nekk sa morom. par rapport Balla Gaye ak Modou Lo. par rapport Modou Lo ak euh, Eumeu Sène. par rapport ex euh, Gris Bordeaux ak kii c'est-à-dire que man su may ñëw Babacar ci moom lay ñëw Babacar damay ñëw dox koom Babacar mu nangoo dox ci ma dox ci koom daan ko Babacar su ko bañee na moom man ma bàyyi ko combat bi. boo ñaax man dox ci Balla Gaye. non contraire bi laa contraire bi mooy. bàyyi booy ñaa da koy xaar. est-ce que ko arrangé xaar bi. moo koy arrangé parce que ki moo nekk favori amul lu muy gagné combat Balla bu demee dina baax ci moom est-ce que. ah loolu nag bu ñu àggee ci lamb ji xam. Ah. <laughs> xam-xam ci tactique ku bëri. kii la tag Balla moom yaakaar na dox ci kanam moo man loolu la yaakaar est-ce mooy mooy li ne. jàll am na mu jàll am na mu jàllut. est-ce que fii mën na fi jàll. Ah, booy bi il est posé dara bu fekkee ni mu doon bëri lan bëree. waaw Balla bu ko saax ko bett. moom Balla Gaye waaw waaw waaw dina am ko bett kontaan ci yow maa la raw <laughs>